que ba tey ci seen scandale di jour de ce 2 mai 2024 ñu dem déglu vidéo bi ñëwaat. ma ni Sonko Diomaye fu projet bi toll livre bi dama ni jot nañu ci nag bi ngeen doon campagne lu ne ngeen di man ngeen Sénégal am na jamaa Sénégal am na zircon Sénégal am na. pétrole yow senegal dafa am dara rew mo xamanteni yow bu amé petrol, am zikro am jama, am yoy yep ñeeni wax mais amu leen matériel xam nga man man nak man nag vidéo bi ngeen may yoni ni wa livre bi nee len dafa wad ci ginaaw lal bi soxna khadi Kebe dana ko for indil ko Sonko pale ba waxna len ko livre bu mu ngi ci souf lal ba dafa rir fouf ah yeen tamit ngeen topp livre bi livre solution solution am kay livre bi bis buñ xam naa ni départ na départ na cité Keur Gorgui daa yëggagul pare mais bis bu yéggee pare ba Sonko jotaat ci solution am na parce que man Sonko gëm naa ay mbiram gëm naa ni solution bi mu bind am na livre bi existe na te li ci bind yëpp da koy appliquer et c'est applicable xam nga nga toog rek ay man su ma amoon oto ma amoon lii ngay rêvé doo mën a ci saa si mais Sonko dafa bind te c'est applicable livre bi soxna Xadi bi moo ko yor dafa war wadd ci diggante lal bi ak armoire bi xaw ma lal bi ak kii bi léegi nag mu for livre bi léegi nag fu mu nekk ni xam naa kon ko kii na daa yàgg toog kii day def sport dox diggante si te kër góor gi ak pale ba bu bu yéggee ba ñu jot ci livre bi dina kii di solution dina am yéen lan ngeen di yàkkamti nag lan ngeen di yàkkamti te waa Touba ñii di jooy nii ay ndox amul ndox amul démb maa ngi seetaan journal ñu ne dafa am astafurlaa coupure coupure eh, électricité bi courant bi nee nañ dafa am beneen kii bi ñuy installé xaw ma Touba ak Touba 2 moo tax coupure bi bëri nii waaye du Diomaye yéen tamit nag gaaw na torop ngeen topp Diomaye nii rek ak Sonko livre bi moom Khady Kébé suñuy tant ji ku baax ki livre bi dafa réer ci biir néeg bi ci suuf lal bi fexe na ba for ko léegi nag da ko yóbbu pare ba bis bu Sonko jotee ci livre bi rek mbir sotti la ngeen yaakaar ni tamit nag boo waree loo loo loo xiif xiif xamal ni timis dina jot luy problème bi bëgg topp nii Sonko rek livre bi livre bi yàlla baax na. jadi jadi jooju daw yoon liggéey jël di fii waay lu ci ñaar